dal ci ñun euh, démb ak léegi di génn ku njaay sunu naataangoo boobu nga xam ni humoriste la euh, ngeen daan ko gis ci TFM daan ko dégg ci RFM tey ma nga tëdd yoof euh, mbooloo mépp tam delloo ko njukkal ca bañ koy denc ak ca fa mu dëkk ca Pikine njaboot ga ak délégation groupe Futurs Médias bu am solo boo xam ni demoon na teew foofu jaale ay mbokkam masawu leen ñu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana ñu dal suñu gan Thierno Alassane Sall salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Babacar maa ngi lay jaal di jaal mboolem groupe TFM ak GFM plutôt euh, ci naqar ak bi ñu daal dal ko sénégalais yëpp parce que njaay yi ñëpp ko ràññe woon ci liggéey bu am solo bu mu doon def ci senegal di ko jaal njiitu kër gi di ko jaal muy Youssou Ndour mboolem ñu fiy liggéey ma ci xamal ñi ma ci xamoon. jërëjëf yal na ko yàlla xaaree àjjana. amiin yal na ko yàlla eh, eh, Sall eh, bu nu desee daanaka ci lu koy nurool fan yi ay bakkan yu rot ndax li ñuy woowee ci français criminalité muy lu insécurité waral leneen leneen criminalité faat bakkan hmm. am nañu jàpp ni. toll na ci réew mi dayo woo xam ni ñu bari am nañ ci tiitaange ci sa xam-xam ak sa gis-gis lan moo ko waral ak lu koy saafara. waaw am na ci loo xam ne amaana ñàkk kaaraange mën nañ ko ci boole waaye yu ci mujj nii ñuy jàll aussi mbokk yi ci ñu ci faat seen bakkan ak ñu ci jëlee ay lor am na ci loo xam ne nag du ci. force de sécurité yi nga xam ne fokk ñu jëlal leen njukkal parce que gis nañ leen temps yi ci mbedd yi ci tali yi guddeeg bëccëg ñuy jéem a def seen liggéey waaye ku fekk nit ci bërëb bu muy liggéeyee wóolu la ngay sëf jëfalanteeg moom nga war ko def ko li nga li def loolu moom jàpp naa ni ci peut-être suñu société maanaam suñu dund Sénégal moo xaw a doy waar ba nga xam ne léegi euh, nit ki benn bés rek jaral na ko mu faat nit yàq addunaam parce que benn benn ngénte wala benn tudd nga bëgg pression sociale bi màgg ci yow euh, ñu teg ko foo xam ne yeggu fa ba nga mu jaral la nga faat bakkanu nit ba nekk yow ci sa bànneex te kenn yëgul dara ci li nga def euh, pendant ce am na ñu nekk ci njàq rek tiis ak naqar euh, loolu war nañu sénégalais bi loolu noonu loolu noonu war nañu interroger suñu bopp gëstu ci suñuy mbir te xam ne am na benn violence ak ak accoutumance maanaam jëm a tàmm violence tàmm wax ju violent ak jëflante yu njàng ak def ne euh, benn beneen bi tamit mooy teg la loo xam ne amaana bu yegsee da ngay ne ci fitna nga nekk tudd euh, occasion de plaisir la war a tabaski ak leneen waaye bu jaralee nga dem lepp wala wax naka su dul noonu wala diggee wala wor nit war nañu seetaat def naa ni jamono indépendance yi président Dia bëggoon na am lu mu ci def waaye société bi bokk nekk na ci société boo xam ne bu taw bi feet jotee voilà jàpp naa lépp daal mu ñu ko def rek ci ñàkk kaaraange force de l'ordre yi dañu taxawul def seen liggéey parce que ku la fekk sa kër nag fàtt la war la kooku def naa kenn mënu ci mucc est-ce que euh, lii xew euh, ñu naan ko criminalité euh, banditisme bi dafa ñaaw teef yi danga koy méngaleek tolluwaayu askan wi ci dundam poos xam nga bu doon koo xam ne dafa sàcc pour wala dafa def ñaawteef pour lekk wala dundal njabootam wala parce que doomam buñ ko fajulee mu gën a loro mun nañ comprendre waaye koo xam ne pour sa bànneexu bopp benn jour nga maye xaalis distribuer jaay jomba ñaaw comme ni ñuy def pour ñu lay tut mais loolu mm, forme de criminalité la boo xam ne bit bi moom moo absurde moo c'est l'absurde absolu kenn mënu ko jéem a expliquer nga dóor say costume nag di ay billets di togg ay laax di taral ay nit fekk yow yaa ngi boom benn doomu aadama pour lan pour dalal gan nga xam ne moom tout tànk boo xam ne ñëw na nga koy tudd mais de manière générale dañu suñu xol yi dafa xaw a toj ci yenn yërmande yi parce que dafa mel même forme de criminalité moo am à d'autres niveaux ku sàcc ay milliards yoo xam ne hôpital la waroon dem wala doomu aadama dañ ci waroon jàng wala dañ ci waroon am ndox nga mën ko denc si sa ay banque tabax ci ay kër yu yu yaañu rangale ci ay fukki oto te romb nit ñi ko moom ñu xiif wala di yelwaan wala di ndóol loolu tamit forme de wax misère bi am na misère bi am na mais capacité wu nit ñi à être le loup pour l'autre am jël li nga moomul euh, xañ ñeneen ñi lu ñuy dundee lu ñuy lekk pour sa plaisir bopp mhm. loolu dafa nekk forme de mm, benn benn genre euh, état d'esprit psychologie bu commencé dugg suñu askan wi mhm. waaw loolu c'est terrible lan moo waral loolu ak lan moo ci cër ak wàllu ku nekk waaw suñu cër mooy déjà xam nga ñun dañu banaliser certaines formes de criminalité parce que dañ jàpp ni criminalité rek mooy jam nit wala dóor ko waaye crime économique bokk na ci yaayu crime yi mooy luy jur yeneen crime yëpp parce que bu fekkente ni. mooy luubal alalu. askan wi luubal alalu askan wi def na ko su dul noonu ger ay ñu war a àtteeg ñi ñeneen ñi ba nga xam ne réew justice dootu fi am bu boobaa euh, ñeneen ñi tamit seen i pexe d'abord pour ñu mun a am alal ci ci ci nu tedd day day day wàññeeku. parce que koom bi du dem du dox et cetera et jëm a imiter. parce que élite boo nekkee élite yegg si fenn sol solo yu ñu gaare ay gàtt gàtt def lu kii ñeneen dañuy jéem a imiter parce que société bi élite yi lay jéem a imiter donc yow yaa ngi propager benn benn doxalin boo xam ne ku nekk ci suuf bu àndoon ak sagoom rek ba moytul moom it dina ko jaral def naka su dul noonu lu garaaw pour mun a bësam aussi moom mu mun a fës. waaw suñu société dafa nekk société de où clinquant euh, maanaam. puukare puukare ak ci daf dañ ko xaw a jox doole waaw euh, ba tax na donc euh, wax nañ seetaat daal suñuy mbir. yaa ngi tudd alal réew mi ak ñi yor réew mi ñu dénk leen ku ñu doon kilifa yi mosoon ngaa bokk ci gii nguur gi fi ne gu Macky Sall gi est-ce que euh, ci nguuru Macky Sall gi alal réew mi ñi ngi ko ñi ngi ko dénk ñi ngi koy randal am déet. xam ko waxee il faut il faut mënuma mënuma globaliser waaye kii jàng téere ba ma bind xam ne am na ci ay cas yoo xam. ndax da bind livre ci pétrole bi ne am na ay naka sudul noonu yu ci am. yu bëree bëri bëri. te loolu danga nga koy gën a dëggal tey. ay milliards ñu ñu ñàkk ko ci bon am am. ay milliards ñu ñàkk wala ay milliards ñu jël def seen poos. Ah, xam nga comme mos naa fi wax waxaat ni mag du fecc yàlla naa dee boo boo seetaanee alalu réew ñu koy def naka sudul noonu. am benn doomu aadama boo xam ne sax du doomu réew yóbbu ko dafa fekk ni ñàkkul am na intérêt boo ci am waaw loolu rek moo ko mën a expliquer donc ay milliards dem ci te yemul ci loolu rek donc man pour man euh, tey jii nii ñuy wax ay rapport nag Cour des comptes yooyu yëpp ci tàng Ablaye Wade sax lañ doon gën a dégg seen i rapport nguuru Ablaye Wade ak lu ma ko critiquer ak lu ma ko ŋàññ dangay nangu au moins moom peut-être juriste la woon peut-être beneen génération la dafa am yu mu xeexoon pendant vingt six ans am na loo xam ne peut-être bopp mënu ko woon nangu mooy rapportu ARMP Cour des comptes euh, IGE daan dañ ko daan fësal waaye tey armpe ci boppam fu lay wan ni fu ñu toll ci ci ñaawteef ci wàllum luubal alal réew mi mooy armpe ci boppam nit ñaa ngi ne tegatul ci yoon ba ñu sax changé turu armpe di ko jéem a yeesal def ni dina dina dina am lu mu faj waaye soppi turu feebar bi du tax. feebar bi ki jiite réew itam wane na pas-pasu xeex ger ci réew mi ndax loolu nga bëgg doon junj léegi ne soppi turu ARMP gën ko tëggaat gën ko may doole xëy na. non loolu du ci dara ARMP ka jiite nee nañ déjà da moom mandaam dafa jeex jeexati ñu bàyyi ko fa defatul saytuwul saytutul ni mu doon saytoo avant ñu indi fi ay ci code de marché publics benn article bu grand bu ñuy wax code. article 81 offre spontanée maanaam yow boo jógee fële rek yor say 50 milliards wala lu ko ëpp ni bëgg naa defal RTS comme ci télévision ngay liggéey RTS ak média détail ay studio yoo xam ne ak ay kii yoo xam ne 50 milliards lay jar lu ne mun naa ko ci def ñu la la àcc bu ñu seet ndax studio boobu moo gën a am solo que hôpital Dantec bi nga xam ne mu ngi nar a màbb wala moo gën a am solo ko ñi nga xam ne ñu ngi ci àll bi amuñu forage ak yooyu dañ lay ne rek acca dem demal kenn du xayma exactement ndax yow li nga wax ni cinquante milliards la jar ndax cinquante milliards la jar wala quinze milliards wala trente. ci noonu am am nañu jàpp tam ni euh, xëy na offre spontanée boobu mën naa ëpp ci gis-gisu ñenn ñi mais am jàpp ni tamit loi yiy joxe marché ci réew mi daa yéex Macky Sall sax moo ko yàgg a wax. ne yéex na yéex goo xam ni day yéexal defar réew mi. est-ce que loo gëm la am déet. bu yéexee amaana mais bu yéexee mën nañu yeneen façon yoo xam ne principe bu ñuy bu ñuy tabax bu ñuy bu ñuy def benn marché dinañ ko respecter parce que marché dafa laaj d'abord ay études amul benn état boo xam ne lépp a ma rawatina nag suñuy état yi nga xam ne que au moins 60 pour cent de la population amuñu euh, ndox mu sell bu ñuy naan surtout ci kaw gi amuñu électricité amuñu ay poste de santé ak et booy def d' abord benn projet da ngay xool loolu tax étude am solo mu ñu xool étude d' opportunité lii ak lële lan moo ci gën a am amal askan wi solo ndax njët li noonu la ndax ni ñu ko war a tabaxee noonu la parce que bu boobaa doo defar ay sphère ministérielle euh, ni dama yàkkamti def ay sphère ministérielle après six six mois après mu commencé am ay fissures karo yi di toj boo demee hôpital du ma tudd hôpital bi dem naa fa temps y a un an fii ci Dakar ñu tabax pavillon bu bees karo yi commencé di xar prise yëpp bu dékku te pavillon bu bees la dafa gul un an nga taxaw xool li fi tubaab bi bàyyi woon ci biir hôpital boobu wala nga dem pavillon euh, université Dakar xool UCAD 2 nga xool euh, ñaata ñaata at tey matugul dix ans nga xool pavillon médecine wala euh, trois yi fa tubaab bi bàyyi woon moo gën a dëgër gën a taxaw te xam ne dafa mel ni sax tubaab bi moo gënoon a jox gëdd askanu réewum Sénégal ak alalu réewum Sénégal que ñun ñii ko moom ñu di liggéeyal suñu bopp parce que luubal gi moo fa jaar donc. Euh, waaye loolu du mag képp. laay wax nag Abdou Diouf ak ko jiit tax waaw loolu tax ñu bëggoon changer régime yooyu yëpp bëgg a changer bi tamit. <laughs> Euh, sànq ñu ngi wax ci wàllu guerre si livre bi nga bindoon ci pétrole nga doon ci joxoñ Aliou Sall naan ñëw na sa kër naan la sama rek booy signal affaire yeeg. noonu nga ko bindee noonu nga ko Euh, euh, moom bi ñu ko tuddee ci yooyu ba tribunal dugal ci loxoom itam dañoo jël dossier ba classé setal ko noo jàngatee loola. tribunal deful li mu waroon def d'abord tribunal mu siy prononcé dikk moom moo ne day def appel à témoin bind naa ci téere bi après ça parce que bokk na ci li ma gën a révolté ma bind téere bi ma ni xam nga boo amee rapport inspection générale d'État boo xam ne ay turu signataires yi ñu ngi fi kenn ki maa ngi fàttali galoox xaw ma naka keneen ki fàtte naa turam am na un certain jaaj seen i tur mu ngi ci date yi ñu ko signé mu ngi ci wax nañu lépp nu mu demee de A à Z procureur ak dikk lu ñu waroon jot a def mooy jël rapport boobu jaaraat fu ñoo ñu jaar convoqué ñooñu ñu ñu convoqué yëpp pour xool ndax loolu nañ ko waxee ci rapport bi noonu la mel am déet parce que le rapport bu xasee nekk ci domaine public dafay nekk pièce ak conviction moom ci wàllu boppam waaye appel à témoin ñu ci xamul dara sax di ñëw di défilé gën gaa bëri ñu ci xamul woon dara ñoo dem dikk. am na ñoo xam tamit ay politiciens kese lañ. waaw bëggoon coow li gën a. waaw euh, lifin rek moo tax tamit ñu dem ne dañuy dañuy témo témoigner ci. waaw moo tax man ba ma demee am waaw loolu tax man da ba ma demee dama leen ne man awma dara lu ma leen di bu ngeen bëggee enquête awma lu ma leen wax daal. je refuse d'entrer dans le jeu moo tax mu bind sama livre parce que gëm naa ni bu ñu defoon un minimum de diligence lu tubaab di wax un minimum de diligence jóg jël rapport IGE bi jàngat ko danañ xam de A à Z ku ci def lu ak ku ci deful bu boobaa ñoom dinañ mën a convoquer ñoo ñee ñëpp parce que quand même contrat am na contrat antidaté am na jox nañ leen les principaux acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo antidaté contrat mais bu ñu toogee seen biro nag bëgg a noyer le poisson te loolu mooy dinañ ci ñëwaat ci kanam loolu mooy problème mu justice Sénégal tey nga xam ne mëntuñu wóolu lépp benn acte bu posé par n'importe quelle juridiction du Sénégal. mais tamit euh, yéen ñi politique da ngeen xaw a doy waar trop ci loolu bu tribunal dogalee lu leen arrangé ngeen ni ça va bu defee safaan ngeen tribunal. doxul doxalul yoon est-ce que loolu tam dina sotti. bon c'est-à-dire que xam nga ñun dama lay jox benn exemple rek ñun bañ jàllee parrainage dañu def communiqué ne jàll parenage taxul ñu ni système bi c'est unique te ku nekk mun na ci jaar euh, faxastal loolu lañ mën c'est-à-dire que buñ tegee ay yoon nii fow nga jaar fi sot nga renoncé ne du ma politique bu du ma bokk pour xeex réew mi. soit nga ne dama ciy bokk di progressivement xeex pour mu améliorer je rappelle que en 83 ba ñu doon voté amul woon isoloir amul woon ay urnes transparentes amul woon encre indélébile Sénat newu fa état bi rek mooy publier loi résultat yi et cetera et cetera ne fa mun mënoon nañ bàyyi xaddi mais compétition bi c'est inégal mais dañ ko xeex di xeex ba mu amélioré wu maanaam naam man tribunal dama may dëgg fii yëpp fii ma ne am na fi déedéet mooy en tout état de cause bu dee ma ci Macky Sall ngay xëccool président de la république wala ngay xëccool procureur wala ngay xëccoog policier wala ngay xëccoog citoyen lambda boo amee dëgg 90 pour cent am nga chance ñu jox la sa dëgg boo amul dëgg ñu àtte te bu boobaa comme lu am France wala feneen Kenya mu ngi fay am Botswana mu ngi fay am bu ñu sori sax euh, Cap-Vert gii mu ngi fay am pour